mooy sa baay Buuba mooy sa baay ko bëgg ey moom de lu mu waaw mais merci jërëjëf ah kontaan rek ak fier parce que bon ñun aussi ah bu dee dañ ñu ñoom dañ ñu bon seen micro yi bëri na mais naa jéem <laughs> waaw donc ah, tey jii nii waaw ku nekk bëgg nga am doom ba mu màgg am ay ambition di ko di ko dawal jël initiative boppam jël yoonu boppam c'est important donc ma ko ciy encouragé ma ñëw fii ci présence bi vraiment je suis très fier d'elle je pense que peut-être c'est le début de quelque chose. Et je pense que ñun tracé nañu yoonu am jom liggéey que ngay góor ngay jigéen nga def si sa fulla ak sa fayda yàlla mottali ko donc vraiment c'est une fierté ma gis que ni moom ci boppam initiative am la xelam la peut-être ñun dañu nekk si ginnaaw di pousse rek mais vraiment je suis je fier d'elle voilà. Euh, mu nekk avocate voilà doon ko doon jàng euh, tey loolu ñëw. Euh, di nga xamante moo di boutique est-ce que ça colle les deux. mais mais euh, pour man jàng. c'est important maintenant li nga bëgg a def li la yàlla euh, sóoraaleel euh, réserveel yow nga def ko je pense que dem ba si biir xam que ni jigéen aussi tout ce qui touche aux aux femmes ak aux enfants parce que gis naa ni aussi. bàyyi na xel affaire xale yi c'est c'est bien et je pense que da lii yàqul lale àddina bi aussi je pense que il faut nit yi di di diversifier seen ay activités donc lii moom vraiment c'est c'est quelque chose de bien mais pour man lii teeñ bi rek yen bi nag moom moo ko ciy def mooy que dans dix ans bu ma koy taaj bu ma ko waree tàccu dans dix ans damay gis que ni ubbi na ci lu mat vingt wala mi ngi dem ci Afrique wala ci monde bi bu boobaa lay xam ni fi mu war a egg egg na fa mais je pense que normalement bu suivre ay tànku parents am ak famille am war na mën a quand même góorgóorlu. waaw mais conseil honnêtement pour dire vrai bëriwul parce que moom laa lay wax ni am na xale aussi am na âge boo xam ne bu ñu fa tolloo jóg pour def dara da leen di encourager xam nga parce que bu doon lu safaan la peut-être dama ko naan bul ko def mais soo amee sa doom mu jàng ba pare ñëw ne dafay dafay def yëfu boppam pour essayer génn si parce que jamono dafa naqari da nga koy encourager mais vraiment su ma gisee loo xam ne peut-être c'est sur des idées wala yooyu mu laaj ma ne ma papa lii laa war a def wala la mais franchement projet bi yëpp moom moo ko moom moo ko gàddul boppam parce que je pense que elle a été bien formée tukki na xam na li xew ci à l'étranger moo tax bu ñëwee fii mun a dérouler